dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gii di sa xëy ci jàngoroy coronavirus ji nga xam ne jamono ji ma ngi jaaba jonge ci réewum Sénégal lim bi nag daat nay gën a yokk fukk ak benn ci ay nit ñoo xamante ni gis nañ ne ni ki démb daat nañ koy am Tuuba yokk si juróom benn yi nga xamante ni ñoo ko fa amoon muy fukk ak juróom ñaari nit ñoo xam ne am nañu jàngoro jii di coronavirus ci Tuuba journal bi mu ñu xamal naa ñu yokk si nag ñaar ñi nga xam ne ñoo ko amoon te wéruñu mu nekk nag fukk ak juróom-ñeenti nit ñoo xam ne amee nañu jàngoroy coronavirus coronavirus ci réewam Sénégal yéen a gii di laas mu ñu xamal naan ñu en tout cas daal law gi nga xamante ni nag moom la jàngoro ji di law rawatina fii nga xam ne maanaam moom mooy ci Touba njàqareeg tiis daan na leen di dugg askan bi nag bu ñu nelawee du ñu nelaw ba yandoora xalif général des mourides moom nag daan nay dakkal li nga xam ne maanaam moo jëm ci wàllum ziar yi ba pare nag daal di wax nguurug Sénégal moom daal moo yor cëggul guyam ci lépp loo xamante ni war na ko nag annulé ni manifestation religieuse Maodo Malick Mbaye ci biir yéen a kaay gi la mu xamle ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi maanaam ñoo a jël seeni responsabilité ci lu jëm ci mbir mi Amadou Ba ministre bi nga xam ne moom lañ dénk lépp lu jëm ci mbirum affaires étrangères moom nag daat nay wax ne umra bi daan nañ koy dakkal te lépp loo xam ne ay procédure la jëm ci wàllum ajug màkk 2020 yi loolee tamit daan nañ koy teg si suufa moom Amadou Ba daal di nag wax ñi nga xamante ni daal ñoo yëngatu ci lu jëm ci mbirum ajug màkk gi ne leen bu leen jël xaalisu kenn bu leen jël xaalisu kenn ba tey njiit réew mi di président Macky Sall moom nag muy jaajëfal ñi nga xamante ni ñooy waa Arabie Saoudite ci dogal bi nga xamante ni daat nañ koy jël moom nag mu jàpp ne dogal bu am solo la Abdou Aziz Kébé mi nga xam ne moo nekk ci lu jëm ci mbirum aj gi moom nag nee na Arabie Saoudite daan nay joxe nag ab référence maanaam exemple ci dogal bi nga xam ne jël na ko fii ci Sénégal tamit kilifa diini dogal bu ni mel lañ war a jëla yéen kaay gi ne assemblée nationale ñoom nag daan nañuy xàllal Macky Sall li nga xam ne maanaam mooy yoon wi mbooleem ñi nga xamante ni daal ñoo nekk assemblée nationale ñoom ñëpp nag daan nañuy ànd ci manifestation religieuse yi maanaam ñu daal di koy dakkal ndax jàngoroy coronavirus ji maanaam ma ngi jàbba jonge ci àdduna bi te jamono ji ma ngi xuus di jàll ci réewum Sénégal njaw nag di wéy di desu xambin ci lu jëm ci wàllu woowa Abdoulaye Diouf Sarr ni ki démb moom ak Aly Ngouille Ndiaye mi ñu dénk ministre de l'intérieur demoon nañ nag seeti xalif général des mourides ngir nag explique ko mbir mi wax ko dëgg-dëgg li nga xamante ni moo ci xewa li am ba des daal mooy askan bi fare ci Touba ñoom nag jamono ji daal si cause dëgg moo leen daal di jàpp ndax nag mbir mi ni muy jaaba jonge ca Touba maanaam ñi nga xamante nag ñoo ko fa am ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp maanaam moodu moodu ba moo leen daal di wàll yéen a nag mu ñu xamal naa ñu daal lu toll ci fukk ak benn ci ay cas yu yees yoo xamante ni daat nay ama moo tax nag jamono ji daal ku mu neex tiit ku mu neex nag daal di tiit te ku ngaa war a tiit ndax lu toll ci fukk ak juróom-ñeent ci ay nit ñoo xamante ni daat na leen di dal te nag soo moytuwulee soo moytuwulee ñeneen ñi nga xamante ni dañu leen a na te ñu jege woon moodu moodu ba maanaam mën ñoo amee jàngoroy coronavirus ji loole nag waa ministère de la santé ni ki démb ñoom daat nañu koy xamle ba tey ci biir yéen kaay gi di vox populi moom xëy di wax flambée bi nga xamante ni nag covid 19 daat na da koy am moom la Vox Populi wax ndax nee na jàngoroy coronavirus ji maanaam maa ngi ñaaj di jàll di dem Touba nag jamono ji mën ñoo wax ne mooy épicentre coronavirus am na ci fukk ak juróom-ñaar ci ay cas maanaam journal bi nee na fi nga xamante ni nag mooy Daaru Marnaan hôpital ba nga xamante ni daal maanaam fa la jàngoro ji njëkkee feeñee hôpital ba dañu koo jël nag soppali ko bërëb boo xamante ni fa la ñuy càmbare ñi amee jàngoroy coronavirus yéen a kaay gi ne Sénégal nag jamono ji ma ngi si ñaar fukki cas ak benn ginnaaw bi ñu fajee ñaar ñoo xamante ni wér nañu fukk ak juróom-ñeent des si tey ji nag soo moytulee dina am si koo xamante ni dina daal di wér bu ñu sukkandikoo ci docteur Abdoulaye Bousso mi nga xamante ni mooy yor lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum coordination mbir mi nee na nag daal maanaam nee na daal soo moytulee dina am ñeneen ñoo xamante ni dana ñu amee jàngoroy coronavirus ji ci ñi xam ne dañu leen a daal di quarantaine maanaam journal bi nee na tamit préfet bu Mbàkke préfet bu Mbàkke nag moom jamono ji daal dogal bi nga xamante ni bëgg na kaa daal di jël maanaam mooy tëj bépp école xam ne ngi ci département bu Mbàkke ba tey ci biir journal bi mu ñu xamal la ni covid 19 ci Afrique nag nemmeeku nañ ne lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ci ay nit ñoo xam ne maanaam amee nañ ko lu toll ci fukk ak juróom-ñeent ci ay réew daal di koy amee journal bi mu ñu xamal la ñu en tout cas nag li nga xamante ni daal moo am ba des ñi nga xam ne ñooy laayeen yi ak appelu laayeen yi ñoom nag maanaam jamono ji pare wuñu benn yoon nag ngir nag daal di dàq li nga xam ne mooy appelu laayeen bi daaka nag Médina Gounass ak ziar général bi ba léegi ni daal ñoom dañu ko daal ñi nga xamante nag ñoom nag nee nañu sax li nga xam ne maanaam mooy julli yi nga xamante ni nag mooy am am ndaje yu bare bari yooye sax ko war a daal di suspendre yéen kaay gii di source añu fekk fa mi nga xam ne député la nekk président commission des finances et du contrôle budgétaire xam le nee na nag maanaam dañoo war a dakkal lépp lépp loo xamante ni jëm na ci ay cérémonie religieuse maanaam nag sans état d'âme yéen kaay gi ba tey mu ñu xamal lañu nag en tout cas daal Macky Sall ci boppam mooy nday mbi léegi moom Macky Sall moo war a am nag laam ak faydaam daal daal di dakk lépp loo xam ne jëm na ci événement religieux ak événement sportif yi journal bi mu ñu xamal lan ñu ey prési Macky Sall nag kañ ngay nag sauvé ñi nga xamante ni ñooy saw askana jamono ji Macky Sall mënut a ñàkk nag mu daal di yëkkati ay kàddu jëmale ko ci lu soxal wàllu woowu yéen kaay gii di libération mu ñu xamal lan ñu covid 19 bi daan nay installé wu ci Sénégal ne na faax nag fi nga xam ne maanaam moom mooy ci Touba te soo moytuwulee dina am ñeneen ñoo xam ne danañu ko daal di amee yéen ñu fekk fa Tafa Gueye mi nga xam ne ay jamono nekkoon na tigre face moom nag daat na yàq lu mel ni xamee ki nga xam ne mooy Alioune Sarr bu CNG Tafa Gueye daat nag taxawal opération wër ndomb nee na CNG si boppam dañu ko war a nag balayer wala ñu jëlee ko fi te nee na yi nag nañu jokkoo ak tribunal bi nga xamante ni maanaam mooy atte ñu yëngatu ci lu soxal wàllum tàggat yaram moom Tafa Gueye wax ne Alioune Sarr dafa war a jóge ci bopp CNG wax ne sax CNG si boppam dañu ko fee war a jëlee andi fi ab fédération te Matar Ba mi ñu dénk wàllum tàggat yaram dafa war a wax ci mbir mi